bu dee gan nga ci suñu kër gii di Faaida TV bala ngay seetaan vidéo bi ñu ngi sàkku ci yow nga abonné te bul fàtte bés ci cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ci kër gi nga mën cee jot bul fàtte zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural ahousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokku wéram may ko fan te nangul ko lépp loo xam ne mu ngi koy liggéey rek noonee la ñu ñaanalee sunu xalif sëriñ Omar Bousso di xalifa sëriñ Alioune Bousso fii ci Touba Mouride mbokk yi bi ngeen ki gisee taxawaay bi ngeen xam ne le 11 mars bi di samedi mooy màggal gu mag gi nga xam ne moom lañ daan def fee ci Touba Mouride moo dellu sooti ñoo ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu ñu ko fekkeloon daaw fekkelo waaletu ñu ko ren ñu ngi ñaan suñu borom mu nangul ñu lépp te ñu fekke ko ay at yi baree baree baree baree bare comme ni ñu leen ko waxee woon daaw rek noonu lañ leen koy waxee dëkk bu diina baa ngi dëkk bu tedd baa ngi dëkk bu lislaam baa ngi dëkk bu Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul baa ngi ñoo ngi fii nag ci Touba Mouride tey samedi bi le 11 mars ñëw fi ngir def màggal gi nga xam ne Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul moo joxe woon ndigal Serigne Alioune Bousso ngir mu koy def fii dëkk bi ñu ngi ko sanc ci 1911 boobaak léegi at yi baree baree bari la ci ndigalu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul muy dëkk boo xam ne moo mujj ci tund wi waaye dundal lislaam dundal alquran ak sax si siraatal mustaqim moo tax dëkk bi tey moo ëmb commune bi yëpp kon nag mbokk yi si ngeen gisee lii rek da ngeen xam ne dëkk bu yéeme la ndax Touba Mouride daanaka li ngeen koy gis ci Sénégal bariwul tubaa Murit ñaari baat yu ko symbolisé da ngeen ne xam ne dëkk bu yéeme la waaye bu ñu la laajee fan la tubaa Murit nekk da nga naan département de Foundiougne commune de ñor Alassane Tall arrondissement de Touba Koto région de Fatick foofu la Touba Murit nekk di dëkk boo xam ne comme ni ma leen ko waxee rek 1911 lañ ko sanc ci ci ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ko ñu wax Serigne Alioune Bousso moom moo ko sanc ci ndigal Cheikh Ahmadou Bamba ànd ak ay rakkam Cheikh Mohamad Bousso ak i doomam Cheikh Ahmad Dokka ak Cheikh Sëriñ Cheikh Bousso boobu ba léegi nag xam ngeen lu fi nekkee jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey loolu lañ yaree dëkk bi loolu lañ nàmpalal ci dëkk bi ak yaru tarbiya bu ngeen doxee tuuti rek ci kanam da ngeen gis li nga xam ne mooy këru sëñ Bassirou Mbacke mi nga xamante ni moom mooy borom Saalum di kenn ci njaboot Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nga xam ne fii la nekkoon am fi juróom-ñetti at nekk fi ak soxnaam nga xam fu mos a dugg ci tund wii rek bu ngoon jotaan fii la daan daal di dellu si fi jógee Cheikh Abdoul Hakim mooy jàmbaar ja borom xel xom Cheikh Abdoul Hakim mooy borom nasru borom Touba Madina ñoo fi taxaw taxawaay bi nga la def bi mu fa jógee ah, ni moo nekk fii ci Touba Ndiaye Ndiaye muy taxaw taxawaay bi yëpp ginnaaw loolu yëpp nag tey jii la 11 sëriñ Omar Bousso mi nga xam ne moo fi nekkal si ñaar yiñ Bousso di kilifa yi jotaay bi di kilifa yi dëkk bi di xalif bi moo woote màggal gu mag gi nga xam ne moom lañ daan def chaque année di ko defal ay maamam. kon nag mbokk yi da ngeen ñu topp rek ñu daa dugg ci biir dëkk bi daa ne wane liggéey bi dinañ dem ci waañ wi dinañ dem ci baas bi dinañ wane salaatu xalaat na bi dinañ wane kaamil alquraan yi dinañ wane soxna yi nga xamante ni ay sëtu soxna jaare leen nekk ay kaang ba pare man ci waañ bi ñëpp incha allahu rabbi dinañ ci ànd ak yéen bu soobee suñu borom subhanahu wa taala kon da ngeen ñi rek ñu daal di ànd ak yéen ci biir wan leen lépp incha allahu rabbi ànd ak suñu télévision bu mag bi nga xamante ni mooy Alfayda TV moom jàmbaar la ci waar wi ku xam na chaque année lépp mooy mu la ñuy àndal mu daal di ñëw teg ñu ci yoon

شريك له أدعو إلى إلى زيد أمان مواهب لجولد خلقي ما يختار من برا نجد وجلا ومن وكرمني تجري كل من لقى بريئا رحمن وهب لجميع الخلق رحمة من يغني عني سر من قرآن دار من خلقايا من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جل الخوالي إرام جميع الورى mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom may ko fan ak wér ba lu mu naal ci liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ma àggale ko noonu la ñu ñaanalee sunu sëriñ biis di xalifa sëriñ Alioune buso di sëriñ Omar Bousso suñu borom taxawu ko sàmm ko te may ko fan ak wér nag tey jii la 11 mars ñu ngi fii ci Touba Mouride ah di def màggal gi nga xam ne mooy sunu màggalam maam gi nga xam ne si Amadou Bamba Xaadim Rasul moo ko joxoon ndigal fii ci Touba Mouride ñu ànd ak waa daayira bi ànd ak njaboot gi ànd ak mbokki taalibe yi ñëw siyaare sunu xalif sëriñ Omar Bousso di xalifa sëriñ Alioune Bousso fii ci Touba Mouride. kon ginnaaw bi nga xamante ni ànd nañu njaboot gi yëpp ak mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp ñëw ënd suñu siyaar yeesalaat suñu njébbal ñoo ngi fii ci kër xalifa bi léegi li li ci des rek mooy jox doomu xalifa bi ak njaboot gi ñu daal di yëkkati kàddu ci turu daayira bi incha allahu rabbi kon dañ jox sëriñ Alaaji Buso rek mu daal di wax ci turu daayira Dakar bi nga xam ne ñoo doon yëkkati léegi xasida yi teewal seen addiya ci kanam xalifa bi ak ci njaboot gi yëpp rek incha allahu rabbi kon sëñ Alaaji bismillah dañoo jox ndigal si jëwrin yi nañ jottali kàddu yi ngir jébale addiya yi di wax ne addiya ji nag ñoo ngi lay ñaan nga jël addiya ji te nangul ñu ko la sëñ Tuubaa waxoon ba mooy jox soxna ja soxna Mariama Mariama mag ma hadiyati xusu bi laa rëddi kama tuqo bi laa xindal kër yi miq bi laa mi ngi jaadi ki mustabriki nee ko maa ngi lay jox addiya ji yow ak sa doom ja xinsa waaye ñoo ngi lay ñaan nga nangul ñu ko te yëgal ñu ko foo xam ne dootu yàqooti addiya ji tamit ñoo ngi koy jox addiya ji ngir jaan yow tamit nga ñaan ñu liggéey bi suñu borom gën ñoo dëgëral si kaddu ñun dañuy waxee daanaka si kaddu jëwriñ Seydou Bousso ñun moom la ñuy sant te boo ñu ñaanal tamit na ko ñaanal dana wàcc si ñun ndax noo gis nii rek daanaka moom moo ñu taxaw. bu toogee sax fu toog lay toog ñun moom moo ñu tax a ñeme kon jëwriñ seer bu sax ak ñim mu àndal nañ ne seen addi yaa ngi nii nañ ko defee ka ka jiitu woon di suñu way jur wa rafetaloon liggéey bi lool noonu lañ ko fas a defee ak yow. di la ñaanal sa jotaay bi sa ay gi dàq si ay suñu borom kàttan na la ci dëgëral la. defal la tawféex. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla cant gu wér gu ànd ak xamd ak sukuru mooy cantuk làmmiñ ak cantuk xol di jël mboolem xeeti cant yi nga xam ne sunu borom dajale na ko di ko cant tey ci bis bii muy ñeenti cant yi am muy xamdan xadimin li xadimin xamdan xadimin li xaadisin xamdan xaadisin li xadimin ak xamdan xaadisin li xaalis mboolem ñeenti xeeti cant yooyu ñu ngi koy sant tey ci bis bi ñu teew mooy cant gi yàlla sant boppam ak cant ki yàlla sant jàmm bi ak cant gi jàmm sant yàlla ak cant gi jàmm sant moroomu jaamam mbooloom xeeti ñeenti cant yooyu ñu ngi koy sant tey ci bis bii ñu dajale. kaddu yi nag mooy day kàddu yu ndigal yoo xam ne dafa béyee ko ci ku tedd gi di xalifatul am li taifati axfari si Aliou Ndié Bousso muy Serigne Thierno euh, Omar Bousso mi nga xam ne mooy xalifa Touba Mouride ci mboolem koo xam ne yaa ngi seetlu ci sëñ Aliou Ndié Bousso ak la ko aju muy kaddu cant ndigal. sëriñ Tuubaa nag jàngalewuñ ne nag laa tafaalu shay'an bi ghayri idnin fal idnu shartun fi qabuli sha'ni ab taalibi la koy jëriñ mooy la muy def mu am ci ndigal ndax ndigal sart la te jëf ja ñu jëf ñu nangu ko te kon kaddu yaakaar na kenn ku fi toog mateewu nga ko manee nga ko jotelee nga ko waaye comme day kaddu ndigal loolu lañ ci am jëfee ndigal loolu kàddu yi nag cant la ak ngërëm ak dalal mboolem gan ñi nga xam ne teew nañ fi mboolem ni ñuy dalalee gan ci xeetu gan gu tedd sëriñ bi dalal leen leen ko mboolem ni ñuy taralee gan ñu ngi leen koy taralee mboolem ni ñuy tatagee gan ñu ngi leen kay tatalee muy gan ñi fi teew ak mboolem mboolem daayira bi nga xam ne ñëpp ñooy njabootam di waa dëkk bi di lu wër dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi sëtu ci sëñ Aliou Ndiaye Bousso sëriñ bi mu ngi lay cant di la woo ci bis bi di la tatagal foo nekk ak foo nekkut nag foo yëg ak foo yëgut nag ndax. cër day fa doon boo xamante ne bu bi la suñu borom subhaanahu wa taala tegee ci kaw mbooloo rawatina mbooloo boo xam ne mbooloom sëñ Tuubaa la ne la yaako ko jiite nga yilif leen sëñ Tuubaa mooy roofu sa mbir say mbir bu sëñ Tuubaa nekkoon doon ci yow sax sëñ Tuubaa dina dugg sa biir ba jeex takk nga xam ne loolu mbirum sëñ Tuubaa lay doon ci boobaa ndax moo ne adxaltu nafsi wa jamia ahli fii jaybi afdali warazil minna ni dugal naa sama bopp ak mboolem ki aju ci man ci poos bi yéen salaa mooy ci xol bi yéen salaa kon nag moom bu dugalee boppam ak njabootam dañuy jëlale jëwriñum ñi nga xam ne moo leen ñoo leen taxawal ci gox goxaat yi ndax kilifa gu nekk am na ñu la taxawal ci ko gox goxaat yi kon sëriñ bi cant ne leen cant gu ànd ak ngërëm ma ñaar rek mu am cantu xol ak cantu làmmañ ndax lu làmmañ mën ta tudd rek lu xol mën tudd rek làmmañ mën na koo tudd yëgale ko kon mu ngi leen di cant ci cant googu ak ci teewaay bi ak ci jëf yi nga xam ne day jëfi yàlla kese ndax jëpp jëf joo xam ne gis nañ ko mu am amati am amati am amati tey gën di continuer yàllaa tax. waa dëkk bi ñu ngi leen di nuyu nuyu gi ñuy jiital nijaay bu Bousso nga xam ne tey moom yàlla teg fii tey nga xam ne moo fi taxawal sëriñ bi loolu la yàlla def. ñu ngi sant naag bu baax di gërëm di sant bu baax di gërëm ndax barab bi tey ku fi teew sa xel dana dal sa xol dana sedd ndax tey boo xamee njaboot gii tey ñu taxaw temm ngir liggéeyal Serigne Touba dëgg dëgg dëgg sa xel war naa del sa xol war naa sedd sëriñ nijaay bi nijaay na sa xel dal bu baax nga dalal sa xel bu baax. na nga dalal sa xel bu baax ñi wax nii tey seen wax ji rafet na te liñ waxin moo nekk ci ñoom loolu nag bu fekkee na nga am gannaaw nga xam ne yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba dong moo leen ñor buñ newee ci sa gannaaw sa xel na dal sa xel na dal na nga am fit na nga ñeme bu baax te xam ne am nga gannaaw liggéeyub sëriñ Touba de du yàqu. du yàqu mukk mukk mukk mukk nit mën a cee dugg nag ba yàqule yow waaye liggéey Serigne Touba du yàqu Serigne Touba it deesu ko xam dañ koy bëgg rek waaye kenn mën xiyaas xaadim rasul tolluwaayam fan la toll kenn mënu ko xiyaas dañ koy bëgg rek liggéeyam maam Xaali Buso dey mel na ni alhamdulilahi rabbil alamin ku ci bokk ku ne war ngaa sant ndax liggéey bi mu liggéeyal xaadim rasul leer waa ji wax na ko léegi leer dey lu boo ko defee bara lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg bis dana jëw dana jolli ci kaw yaakaar naa xabru bu fa mu tëdd yàgg na fa te tabax wuru man de daaw dem naa fa bi ma booboo ko fii waaye sant naa bu baax sant waa dëkk bi gërëm leen nijaay ñi nga xam ne moom nañ dëkk ba jiitu ñu ngi ñaan ci kàttunal yàlla nga xam ne jiitu nañ bar sàq te buñ leen gisati ñoo leen fekk yal na ajadaay firdaw si nekk seen wàccuwaay ñu dëkk ko xaadim rasul ak maam Thierno Birahim yàlla mën na ko yàlla na ko def. njaboot gii nga xam ne tey ñu ngi sa gannaaw maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla mu daj fépp moom lépp mu defal leen defaru goo xam ne dara dootu ko yàq àdduna ba àjjana te tëjil leen ak buntu xiwal yi man li ma leer mooy bu ñu amoon ay milliards wallahi dëkk bi dana gën a jëm ci kanam. te rafet nañ jortu yi ne bu ngeen ko ñaanee nijaay bu ngeen ko ñaanee am ci pas-pas yàlla dana ko def ndax xale yi. xam nañ lislaam xam nañ jom nangu nañoo liggéey bëgg nañ sëriñ te li may wax yàlla doo nga tax ma rek wax dëkk bii da da Touba am nañ lu jafe am nañ lu jafe am nañ lu jafe waaye nag ngeen yokk góorgóorlu xam nga mbir nag mooy fépp foo xam ne yaa ngi ci seqi sa tànk ci lu baax bët bu set da ngaa fexe yokk ko waaye nag boo xamee fa nga xamoon daaw déwén jot nga dikk xamaat foofa déwén déwénaatu jég dikk nga xamaat fa kon mel mel na ni dem amut lépp lu ngeen mën a def lu ne mel na ni leen tefale defagu leen dara foo ngeen ko jàpp bu bu ngeen di dem. waaye waxtu woo defee ren nga def diwen jot nga def la nga defoon diwen ñaatu jéeg def nga def la nga defoon te benn yokkute ni wu ci bu yàggee dellu gannaaw laay nitu moo bëgg ngeen yokk ci góorgóor bu baax ak Pastef seet seet bu soo sa taxawaay guni yi sant nañ la bu baax gërëm la waaye ku def lu baax dañ la sant gërëm la ñaanal la waaye yaako moom de yaa ko moom sa bopp ngay defal boo defee leneen ne dañ la sikk de waa ji sa bopp nga nekk kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara dëkk bi nag tey yàlla on na ko teg ko ci nijaay omor mii tey nga xam ne nii tey man fii ñëw naa fi siyaare mu taxaw ne mbooleem lu ñuy def ci daare buñ taxawee waxtaan sir place la xaalis bee dajee dara du manqué te kenn du ma ci sonal bi ma demee nattil naa ko sëñ Madi sëñ di nuyu na leen ci tànkam lay ñëw ànd ak sëñ Bay Dramé mii ak Koto Laara xam na suma ñaare xale yoo xam ne ànd ak ñoom ñëw tey ci bis bi. sëñ di nuyu na leen ñu ngi leen a sant bu baax da leen gërëm di ñaan bis bii mu gën a jëm kanam te yàlla bu ko dara yàqu yàlla mën na ko yàlla ko def. bu ko defee ngeen yokk góorgóorlu bu baax fi nga li nga def dem nga def ko tey déwén jën nga def ko déwénaat jën nga def ko te avancé amut ku yokku rek yaa wàññeeku. mooy bëgg mu gën a jëm ci kanam yéen ñëpp ngeen bokk ci yéene ak pas-pas dëkk duñ ko xeenu duñ ko xeenu fañ laa jàppale lépp lu mooy laaj ngeen taxaw ci dimbale ko ci. bu ngeen demee yéen ñi nga xam ne dëkk bi ñëpp ay liggéeykat lañ li nga xam ne mooy yitteem ak i soxlaam ngeen da ko ci jàppale bu leen yem fii rek de li may wax ngeen dégg ku baax ku nekk ci àll bi di liggéey na nga yore ay mag ci kër. yore baay yore ay ñoo xam ne mënuñoo dem ngay dem di taaba taaba da deferu boo dikkee la nga am jàppale leen ci jàppale leen ci bu baax jàppale leen ci ndax boo boo leen boo leen dimbalee rek ca kaw ci kanam su seen xol sedd rek sa xol sedd njiit dañ koo jàppale njiit dañ koo jàppale ci saayir jàppale ko ci baatan di ko ñaanal di ko dimbale ci sa wërsëg ndax kat ndax kat da ngaa gis booleem réew yi réew yi moo fi mën a dem rek fekk nga fa sëñ Tuubaa ñi nga xam ne dégguñu wolof ay tubaab lañ ñii da ay naar foofu dem rek yaa ngi fekk kër sëñ Tuubaa te seen foofu boo fa demee semaine mën nga fa sa dara du manqué loo bëgg ñu defal la ko te sëñ Tuubaa rek tax kon ñun sëriñ Tuubaa bu fekkee dañu am suñu maam mu lëggeel sëñ Tuubaa mu gëmal gërëm ko seexal ko wax dëgg kon waruñoo yembar li may wax ngeen dégg ko bu baax na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax jàppale kii muy nijaay obor nga xam ne tey moo fi taxawaayu sëriñ bi ci saay ak ci baatin di ko dimbali ci seen sag te di ko ñaanal lii maa leen ko dénk. sëriñ Tuubaa nag dafa wax ne amaatu addu min ma al xalqi fa antu bëjilu sax sal kabiru haysaan wa tarhamu sax sa kaaru kal warat ba misluka ijalan kana fi kutufat dëgg-dëgg sëriñ Tuubaa mu ne teggeen bi nga war a ànd ak si mbindee fi ñett rek la moto ñeent ñett. teggin bi nga war a ànd ak mbindeef ñett rek la. mu mooy ku la féetee mag màggal ko ku la féetee ndaw nga yërëm ko comme sa doom ku sa morom nga def ku di sa bopp moom matul ñeent ñett la boobu la ñuy ànd ak mbindeef teggin bi nga war a ànd yàlla ñeent rek la matul juróom. imtisaaru lawaamiri wàcc naa bu nawaahi wa sugri ala nihmati wa sabru ala baay balaay jokkoog ndigali yàlla yi bàyyi tere yi sant ci xiwal yim laa xiwal muñ balaa yim laa teg ñeent yooyu rek moo juróom ñu bàyyi ko xel bu baax sëriñ tubaay ne na fa tafasoo sawama hawaahu wal batna mislahoo wa ma walaahu nii bii xëy nay ni wal farji wal lisaani wa rijlay ndax da nga wut ko bopp sa bopp bii ak lim làmb biir ak biir bi làmb muy sa ñaari loo sa ñaari bët say nopp say tànk sa biir bi sa pëy lenn lu ci da nga ciy def lu dagan te bañ cee def lu raam ndax yowmal xiyaam lenn lu ne daay taxaw di seede lenn lu ne daay taxaw di wax te bés bi dana ñëw de du jaas mukk te ñii tëdd ci sëg yi tey Sëriñ Tuubaa ne ne ñi tëdd ci sëg yi koo ci fëggoon ne la la ba mu jóg nga ne ko lan nga bëgg gën a bëgg tey mu ne dellusiwaat ci àddina ngir liggéey lu ma mën a jëriñ fii ma nekk. kon kuy dund am wir dara jotul la dëgg dëgg dëgg bu desal lislaam bi gannaaw na nga góorgóorlu ji waxtu juróom te da ko def ci laab te da ko def ci waxtu te da ko def ci mbooloo ma. ji ñuy jëf yaakaarul ko woon sax. nee na lu ko bett la. ndax lii ñu def. ndax lii ci moom. nee na rëy na ci moom lool. duuma dara. ku xoyof la. nee na moom ko xoyof la. waaye lii ñu defal ma. waaw lii defal ko. ñoom moom. moom na ci moom lool. te ñu ko def. te ñu ko def. benn jàmbur nekk. benn jàmbur nekku si. ñii maa seen baay. ñii seen la. ñii ñooy sama sët. ñii ay sëtam lañu. ñii sumay rakk la. ñii say rakk jarbaat. waaw loolu nag. nee na loolu. kum doyul. kum doyul. dara dootul doy. may leen xamal ne la. nee na leen di xamal ne. man de ki fi bàyyi ko. nee na magam ji nga xam ne nii moo fi bàyyi ko. ku mu sant nee na ku mu sant la. bu mu yéexoon dem këram. nee na bu yéexoon a dem këram moom. amul genn julli nga xam ne du moomaa njëkk a siyaare. nee na amul genn julli xeet goo xam ne nii balaa jog moom mu jog moom Baye Thierno ñëw seet si ko moom balaa yow te moom moo waroon jog. xam nga ko ko xeefa ko def. nee na loolu ko xeef rek moo koy def. te it li ma ànd ak moom. te nee na lu ma ànd ak moom Baye Thierno. jàmm rek la. jàmm rek lañ seqoon. daan nañ waxtaan de. daan nañ waxtaan de umbante wuñ ci dara. muy nag nangoon naa topp ko. nee na moom it nangoon naa topp ko am ñun loolu leer nañu. mboolem ku xam ne moo suma mag dëkk bi. nee na mboolem koo xam ne xalifaam la fii si dëkk bii. yaakaar naa ne li ma dafa yow rafet na. nee na xam naa moom ànd bu rafet te yaakaar na ne rafet na lool. ñàkkewu ma tegg teggiin. ñàkkewul ko tegg te ànd naa yow àndul jullit. te xam naa moom àndul jullit. kenn mas da dégg Omar a ngaa jotee doomi baayam kenn mos a dégg ñu ne Omar mu ngaa jotee ak doomu baayam yi dëkk bi sax bay mën na dëkk bi. nee na dëkk bi yëpp loolu ñun see mën nañ ko seede luñ ci fekkee mën nañ ko seede. loolu moom euh, maye yàlla la. nee na loolu moom mayu suñu borom la. waaye duur suma kattan. waaye duur kattanam. ah lu ma xamit. nee na lu mu xam. li yàlla indi na ko xamoon na ko ba indi ci moom. nee na lii yàlla xamoon na ko ba indi ko si moom. waaye nag euh, ngëbewuma ko banque suma loxo yi. waaye nee na moom ngëbewul maanaam duhul loo xam ne lu mu sàkk woon la duhul loo xam ne doo ko bank ngëbee bank loxoom bañ koo benk nga bañ koo benk du noonu du noonu nu ma ko ngëbee nee na ko ngëbee tàllal loxo tàllal loxo ku tàllal loxo ku tàllal loxo bëgg nga koo xandat bëgg nga koo xandat dëgg la loolu laa ko jàppee man nee na noonu la ko jàppee fas yéene naa ci ci ma fi ne ma ne fas yéene ne diir bu nga xamee ni moom la ko yore yal na yàgg lépp la xam ne yaa lépp loo xam ne ni la dagon la. lu daggoon la. danaa ko fas fas na yéen fas ko. bu soobee yàlla. bu soobee yàlla. lépp lu daggoon. lépp lu daggoon. danaa ko fas na yéen a fas ko. amul kenn nag ku ma yaatal. amul kenn ku mu yaatalul nag. ubbi naa suma yëpp. nee na ubbi na ay buntam yëpp. boo ko doxee gune. boo ko doxee ko doxee mag boo ko doxee mag. boo jigéen. boo ko jigéen. yàllaa ma bindee loolu. nee na yàllaa ko bindee loolu. ñëpp ñëpp laa amaat jàmm. ba génn dëkk bi sax réew mi dara laa wax. ba génn dëkk bi nee na réew mi yëpp. amul mu am xaar ma yàlla. waaw ñëpp laa amaat jàmm nee na loolu bu yàlla defalee. nga am bis bii. nga am bis bii war nga koo xamal nit ñi war la loolu rek la. waaw su ma wax sax bëriwul ci. waaw na waxam sax bëriwul ci. nga jox am sëtu mu ñaan. waaw. nit ah gannaaw loolu itam maa ngi kii di Baye Omar ñun ñëpp nañ ko jàpp xam na ni mooy sunu sëriñ Mountakha moo fi toogal Serigne Mountakha dégg nga ñun ñëpp nañ ko jàpp te doole góorgóorlu bu baax a baax a baax baax luñ ko jàpp rek nañ ko xeeb doole ko jàppaat kon jox sëñ am sa mu ñaan. waaw nee na xanaa xanaa waa brigade gendarmerie agsi nañ léegi ñu ñu ñu ci néeg bi waaw borom dëkk mu ngi leen sëriñ baa ngi leen xamal ne yëg na seenu ñëw ak waa sapeur pompier ñëpp sëriñ bi nee na yëg na ne ñëw ngeen. moo leen di dalal si jàmm bisimilah. إياك نستعين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين صلاة محمد إليك يا جليل مصليا على بك رسول نبيك المعلم العليم محمد مفتاحنا الحكيم قلبه قلوبنا إلى صواب وهب لنا بجاي الكتاب رغبه قلوبنا للحكم وهب لنا بارتفاع همم أحرق قلوبنا من الهيوب حتى نرى لرعد الغيوب كن جاسبا دق الكتاب فهمنا واتنا خير صاب فاخر إليك دائما كما يدوم قناك نيك يا كريم لك الإله الملك مثل الملكوت كما لك الحسنة الجبروت أجبدها إيا ولا تحرمني ما تجي منك القفسان تفللا علي بالقبول بلا المسا مقبول نبيك الفاتح ما قد ألقى المتبع ما يسفي منتقى سيدنا خير ورا محمد عليه من كرب طول الأبد أسكى صلاة وسلام بهما نبيهما قيام أحمد yal na yàlla seddal ko moomal ko ormal ko barkeel ko dàq fi seytaane sotti fi ndimbal ak xiwala yërmaan te doole Sëriñ Tuubaa ak Maam Cerno nu mu sëlee la si